dal ci xunt yi ak ci kàmb yi nit ñoñ ñépp seen ngëm a tax ba yàlla seede loon leen lu baax moona dey jotuñu li yàlla dige woon ndaxte yàlla dafa tëral lu gën ci nun te bëgguleene yeggale ci mat fii ak ànduñu ci ak nun